waa Sénégal waa àdduna waa Mboye Madiaga mooy benn booy bu nekk géejawaay def musique mbalax bëgg cee teral képp ku am nag kooku mooy Mboye Madiaga waaw yoole moom <laughs> wax naa ko ci émission yu bari yoole benn benn moo la bu ma doon fooyee rek te avant ma koy fooyee 2016 dama nekk Brioche Dorée bu Géejawaay euh, di fa siy soirée Brioche Dorée bu Géejawaay fii sama deuxième soirée ma Moussa Tara naan jàmm wàlle ma diit na la ay layli la Tara Madina Pulo loolu sama benn boobu neex eb na ñoo ni moom mbooy ma jaago waay yoo leen soirée bi dafa sedd gaan xam nga yee loolu moo andi mu ñu koy fowee nag xam nga yoole leen ko yoole leen ko waaw ma dégg ci lu nag lu dégg naa ko ci ok noonu la demee waaw sama cosaan Bambey la dëkk bu ñuy wax Mbaabu garage foofu la sama yaay jógee ak sama papa man fa laa juddoo papa après 99 sama papa génn àdduna waaw way nag mën naa ni dama cee juddu te damaa bokk ci famille bu ñu way waaye dama naa ni maa ko moom ndax yaakaar naa ni xaar mbay ma jaaga kenn du ko présenté kenn Sénégal fii ah per Zora Bizet théâtre xam nga Daaro Mbay xam nga samay maam ñëpp doon way di ay gànjool gànjool sama famille yaay di ay waalo waalo kon man way def naa fa bokk ci man mais way nag man li ma ci dugal mooy doon naa fowantoo ay jàngu tabala ay woyu tabala mais benn jour may jëndi popeline pour ñëw sama gàlle ay yére dagante ca sekk si biir koñ bi mu yow boy dama bëgg nga ñëw aw ma fële benn programme fekk mu yëm moto euh ma mané ko programme la la ay jàng mu non non musique mané ko non man munima ma loolu de mënu ma musique munima ni dëgg ankay naa la dëgg naa la nga ay tabala xam naa am nga dégg bu mu demee da nga mën a way da nga mën a aw ma ko ah nan dem ma yóbbu bëgg sama gaal teg ko ànd ak moom dem yee bi ñu demee nag ma aw ko jour boobu loolu moo indi samay way waaw loolu tamit yàgg naa ko leeral euh, waaw sama mag jooju caat damay wax lu bëri ni lu ma mel nag moom la wax dëgg yàlla lu ma mel ba mu ngi tudd tey euh, di ma wóor di ma jox ay programme wala ma ma ma ma bokk ci ñi tudd moom moom da ciy zéé bu baax wax dëgg yàlla sama mag jooju ma koy ñaan yàlla defal ko jàmm na defal ko xewal yokku ko ndax ku ñàkk ki ñaan la ku ma wax deug yalla amang ben benn xaar ma yàlla ndax fan sax ñu ngi waaj pour dem ci mom pour nak ndax grand théâtre bi may waaj mom la ko pare moy mooy bu mag bi waaw mom la jël lepp teg ci loxoom. lan moo waaye yaa ngi foon biram yow sama waay nga yàgg nga maa doolal 31 bi yow laa woon ne yow yaa ma doy ci bis bi yow yaa filmé lépp macha allah gis nga bi mel trop xale yëpp wàcc si foofu te am na ay kilifa yu nekk géej Dakar fii nekk ay woykat yu mag tëgg jour boobu mais ñëpp dañoo bàyyi ñëpp ñoo baal si mbooy ma jaaga waaw ma ci ma ci gërëm nag waa géejawaay surtout waa géejawaay ndax Pikine ak Parcelles ak keneen keneen bu ñëwee rek waa géejawaay ñoom ñoo ko waral kon euh, mbax waa Guédiawaye la dal mais grand théâtre ba en tout cas le 4 avril non dina yolo yoolawu de borom waaw dina yolo ma sha allah. li waaw. waaw xam nga fête de pendance la mu tombe bis bobu ci ñu mom suñu bop yalla dogal bis bobu nak nek bis bo xam ci la ñu boy ci lay dem grand théâtre te xam naa ni suma ma mën tamit loo xam ne tii tey damaa dàqawee ci Sénégal mais mbaaxu yàlla rek ak dogalam ak mbaaxu waa géejawaay ñi ma jàppale yee mooy par lu tàq nag lu kenn musul dégg waaw ak tamit yoo la grand théâtre ba nga xam ni noo am na gan nag waaw barki démb defe naa seeti na mbër mi mbër mu mag bi muy Balla Gaye dem nañ këram ànd ak sama mag ji Cheikh Gueye ñu dem këram mu teeru ma teral yàlla waxtaan ak man xamal ma ni ma dina si jàpp bu baax a baax ñu si woo ko ma ni Malick Gakou suñu suñu nijaay suñu lépp di ko tàll suñu loxo ku ñu jàppale ñu jël ah. ndax li ma wax chaque jour rek ñun kenn nekku suñu ginnaaw waaw kenn nekku suñu ginnaaw mais am nañ fi ku mel ni béy di ba ah monsieur le maire ñu koy di ko tàllal suñu loxo bay di sëy euh, bu ma sen jaram ñeeru fi la jaram limaam laay ba di sey rasim tala surtout a di wala min jaar sama ñoom ñëpp tàllal ko fi ngor de sama mag tàllal ñëpp loxo moo geul tal ko pour ñu jàppale ma ndax nak gaay yi kat du baax te ñoom su baaxee géejawaay la do mu géejawaay mo jëm grand théâtre ak jéey sama mak promoteur ma ngi woon ñëpp par si bayima kenn waaw léegi nag may gërëm avant may dem di gërëm sama staff di gërëm sama xarit bi nga xam ni fii laay toog bu bëccëg muy Balla lu ma ñëw si àdduna moo koy moo lu ma sol moo koy ñëw di ma jàppal di ma dooleel di gërëm sama xarit yi Pape Bour Géwal Zap Cheikh Gueye Koudia David sama bijee di gërëm sama nijaay Badou Niass di gërëm Assane sama manager di gërëm Birame gërëm naa ñëpp ah, sama rakki ma ci bidini taxaw di ma salam sulayman sama xarit gërëm na ñëpp yee rendez-vous bi nak le 4 avril la invité surprise yi premièrement Thiat Seck premièrement Thiat sec eh? Baye Cheikh Amassi Cheikh gey Ndiora mbay gey euh Sidi Diop di ci woo sama xarit ngeug mbay di wo ak Sarr sama mbokk sama morom artiste yëpp maa leen woo ñëpp maa leen woo ñëpp waaw ñëpp maa leen woo waaw ñëpp ñëpp maa leen woo waaw sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp nag waaw di leen wax daal ñu leen nag ah mbooy ma jaaga nekkul rek pour yore laa fi nekkal maa ngi ci yeneen dama ko doon foowee rek mais nang ngi ci yeneen man artiste international laa war a doon damaa war a dégg soo dégloo way ma way sa xam ni man waykat laa war a doon waaw kontan kontaan naa Dóor yaay ba quatre ans incha allah gën a jaaxal. mooy xanaa daanaka wax na lépp ndax moom suñu rakk li moom ñu wax loolu la Cheikh Gueye la di rakk nagu Mboy di xaritu Sénégal waaye nag Mboy suñu xarit la suñu rakk la du dëgg mais nag ma lay wax benn affaire grand bëgg la la ci 30 la 30 wala 31 ndax sax ko du grand jëm bu ci ah ndax nag nit moom ci li ngay liggéey boo ci gëmee sa bopp yàlla mën na laa dimbali yàlla mën na xam nga comme mu ko waxee nii rek ñu ngi woo waa Géejawaay yëpp ñu jàpp ci ku ci mel ni Pam Mama Fall xam nga àndaw ñun ñëpp gars nañ ci ndax ku ci rek nga na xam ne wax ma la grand théâtre le 30 la dem le premier le deux le trois le quatre ndax instant bi pare nañ du dëgg ñu ngi woo ñëpp ah jërëjëf